wax a xeew yi d' accord oui d' accord nañ def attention jumbo loolu am na solo mais foo mu bëgg ñu dugg fa rek dañuy delluwaat nee naa la li nga xamante ni ba tey moom mooy actualité ah, di rey bi ñu rey Aziz Dabala ak nabu lay naam déggoon nañu laas bi doon ne Nabou Leye mën nañ ko libeere ci li nga xamante ni moom mooy ah, ci li xew gis nañ tax benn feeram bu génn wax aussi moom it ah, jot nañ aussi tamit ñu ne am na ki nga xamante ni beneen suspect ba ñu teewaat ban jàngat nga am ci loolu Jëmboori. mu ne am na. benn suspect bu ñu teewaat ak frère am lu mu xamante ni jot na ko wax ak laas lu mu bindoon ne Nabou Leye mun nañ ko libeere waa xam nga man. Mhm. Euh, lan laa lay wax Abdou Khoudia. Mhm. pour man kaaw Aziz Dabala. Mhm. bu leeree nàññi nàññi nàññi naññi. soo moytuwul dina dina bëri ñu bari dootoo leen gis. kaaw Aziz Dabala bu leeree ñi dina bari ñoo xam ne doo dootoo leen gis ah bon hmm. ba pare Aziz Dabala est xam nga lan moo garaaw ci kaam xam nga ko mooy nit a ko fekk këram ne ko tey dama lay génne ci këru duniyaa yóbbu la këru àllaaxira far force hmm. dëgg la de tamit ak nu mu mën a dee dee na dee bu metti hmm. wallaahi parce que dara gënul metti Abdou Khoudia ngay dund hmm. xam ni sa ndey a ngi dund xam ni say frère a ngi dund xam ni état mi ngi fi hmm. xam ni gendarmerie mi ngi fi xam ni police a ngi fi xam ni ñii di ma def lii am na ñoo xam ne buñ fi teewoon duñ ma ko def ñu la koy def ngay xool wallaahi ñu ko gën a metti dafa am waxal. Mm-hmm. mais léegi lan moo tax ñu def ko ko. moom na kenn xam ma tey non non loolu kay buñ ko bëggee xam-xam ko. Mm-hmm. lan moo tax ñu def ko loolu. Aziz waaw. Aziz Dabala rek est-ce que xam nga Aziz Dabala bi mu génnee àdduna ba léegi dafa am benn film bu commencé daw. maanaam mu boqul ak ak ak rayu Aziz Dabala bi. dafa am film bu commencé daw. ci Aziz Dabala te bokkul ak ray bi. lan nga bëgg a wax. waaw c'est-à-dire que mooy. waaw. Mhm. Dabala ñan bi muy dund ci àddina ñi nga xam ni dafa seqoon ak ñoom lien ñoom ñoom ak Aziz Dabala lan la woon. pour man bi Aziz di dund. Aziz moo leen jàpp. du pour man bi Aziz di dund ñooñu jàpp ñu Aziz. nan moo tax nga bëgg a wax loolu Jimbori. waaw parce que xam nga Aziz Dabala. dafa am ay artistes yoo xam ne ñoom la seqaloon lien. xam nga showbiz moom lien la. lien la waaw. comprend nga li mu la wax link link par link la. léegi tey. ñi nga xam ne du seen du ñu ay linkam sax ñëw nañ jaale si ko. ku ci mel ni. waal sekk du linkam. waaw moom sax da daan wax ni soxla na pour waali woo ko mu feccal ko. waaw gis nañ daan nañ ko dégg ci ay interview waa waaw ba pare léegi. Mhm. est-ce que lu tax ñun bi ñu Aziz Dabala dee lañ doog a xam ne ndaanaan la. Sénégal moo demee noonu. non man xamoon naa ko nii. mais bi mu dee nii. Mhm. laa xam ne ndekete Aziz Dabala mii. Mhm. ndaanaanu fecckat la. ndax création yi mu doon def ak ni muy def ak mbooloo bi mu doon àndal ni muy répété clip yi bu ñuy répété tamit moo leen di jox not yi moo leen di jox pas de danse yi. parce que Aziz Dabala ndekete nekkul woon tëbal ma tëb rek ñu tëb daje ah bàyyi mu bukki tëb bàyyi ma tëb ñu daje non non. dafa moderniser woon li nga xamante ni moom. waaw ndekete métier bi. Ah. daf ko commencé woon di ko régler pour def ko métier. parce que note yooyu tey dama ko seetaan. pour ñoŋal fecc maanaam. waaw dama ko seetaan. mu jël ay nit bi muy fecc kili bu Kumba Gawla bi. te mhm. muy sol yëre Baay Faal bi. muy jox gars yi ay note di leen nan la ñuy tëbee nan la ñuy àndee spectacle bi nan la ñuy def nan lañ koy feesee xam nga chorégraphie bi nangam nangam. ma xam ni kii. ndaanaan la na pour def ko métier. wallaahi parce que nit. mbooloo bu ñu àndee. kenn wax ñoom ñëpp nangoo déglu te li lim leen wax yéen ñëpp boo leen ko defee mu mu rafet ngeen gis ko. Mm-hmm. ànd ak sabar yi. spectacle boobu ba pare gisoon ndekete Aziz Dabala boo ko mësaana jox son bi. Mm-hmm. xam nga son day wax. waaw léegi Aziz Dabala manière bi manière li ngay way. moom lay fecc. moom démonstration bi noonu la ko doon feccee. parce que est-ce que xam nga way wax la. Mhm. fecc est-ce que xam nga fecc démonstration bi wax la war a doon. maanaam démonstration bu way bi mooy mooy mooy moo nekk pas de danse. mooy mooy pas moom moo amoon ci fecc. ñu naan diw dafa dégg galañ. parce que gisoo ko ni mu doon def kum killi bu kumba gaaw la bi. parce que ni lu muy wax rek. <laughs> démonstration bi loolu lay def. loolu mooy doon loolu mooy. loolu mooy fecc. Mhm. mais tey ma wax la dara. est-ce que tey Abdou Koudia dinaa la wax. Mhm. lu la kenn dul wax. mooy est xam nga lu tax fecckat bu fecc rek ñu ne la góor jigéen la. man moo tax waaw bari na ci. maa la ko njëkk wax nag. waaw parce que gars yi. yaa ngi nekk <laughs> dañuy sàcc sama yenn wax yi di ko yóbbu. Mhm. yaa ngi dégg ñooñu mhm. noonu. léegi ma wax la benn affaire. ban fecc nga gis ñu koy fecc mu nekk fecc bu bees góor génne ko. dégg nga wala dégg naa la kay. ma ni ban fecc nga gis waaw mu nekk fecc bu bees. xew ci réew mi. góor génne ko amul. waaw fecc ti kelaw bi ku ko génne du ti kelaw mhm. bu ko góor toppandoo moo tax ñu naan la góor jigéen. Mhm. góor ñee amul seen fecc bopp. dëgg la. moo tax ñu ñu leen di tooñe góor jigéen. Mhm. léegi góor jigéen lu tax ku fecc rek ñu ne la góor jigéen. lan moo tax. parce que fecc yi ay jigéen a koy génne góor ña topp ca góor ñi ñoom fexewuñu génnee ay fecc am fecc comme ni ko Aziz daan defee di créer waa kay mhm. dégg naa la lii moo tax ñu naan leen góor jigéen mhm. fecc yu bëri jigéen a ko génne te bu jaaree yoon tamit jigéen a ko war a génne ah. mhm. wax dëgg yàlla parce que fecc ni ko asi doon defee def ko métier def ko note ba mujj gi mu am école am demoon na bay bu doon noonu lañ ko ñëpp continuer fecc dina dem ba ñu sécuriser ko ku am personnalité sax dina fecc ji mais niñ ko doon defee fan yële nga xam ne ku la dàq golo golo lu moo la dàq fecc xoola fecc dalin bi xam nga fuñ ko jëlee hmm. ci dox buy say say ma rafet <laughs> fa lañ jëlee waaw mais dañ ko jëlee dañ ko indi moderniser ko defar ko parce que boo demee ndugg indi ko sa kër. Hmm. doo boo xooliwul ndugg mi doo ko togg da nga koy xooli rafetal ko doo ko togg lekk ko. Hmm. du dëgg. Hmm. mais léegi lii ñi nga xam ne dañoo lii pour ku wax. ñoom ñu mën a xoola ñu mën a ñu am na pourquoi ñooñu euh, euh, mën ci néew lu ñu mënul ci. ci kuy ñu mën néew lañ ñooñ mën nañ néewaa maanaam su ma la déggee man ci li nga wax maanaam tey Aziz bi muy dund li nga xamante ni mën nañ ko jàppale waa boog wala jàppale waa famem bi muy avant muy génn àddina bu fekkoon jàppale nañ ko tey Aziz mun na romb fii ba amaan amaana tax li ko dal li ko dàll néew lañ gën a mën d'accord xoola xam nga lan moo la koy wan mhm. Aziz bu demee ba bokk nat am na ku ma ci dégg mu yeggale mébétu Aziz boo xam ne ci natt la ko sosoon pour def loolu. Mm. te yow yàgg na laa feccal. yaa ngi dégg. Mm-hmm. est-ce que buñ ko joxoon liñ ko war a jox. dina bokk natt waaw. ndeysaan dëgg la de waaye. souvent léeg-léeg ku bokk natt yorul compte banque de. Mm-hmm. mënoo boole bokk natt ak yor compte. nekk. du dëgg. Mm-hmm. ñu yor compte dëgg. waaw moo tax wokkatu nii. mënta ànd ak tëgg tama tëgg ma du neex de wala ki lay feccal dana la xaar. boo woqatoo mu xaar léegi nag Aziz Dabala xam nga tey moo wax la dara dafa am benn affaire bu nekk ci xam nga tey lu tax artistes yu ndaw yi fu ñu nekk ñu fekk leen fa di leen jël di leen filmer di leen wane bi ndongoloo dee ndongo dafa dee a pare berte berte presse bi amuñu ci moom dara ndongo moo tax bu njëkk ba artistes yu mag yi rek lañ daan jëli boo nekkoon artiste bu ndaw yaay topp télé yi di sarax léegi ndongoloo moo fi dindi loolu léegi Aziz Dabala lan lay dindi fecckat yi lan leen lan la leen Aziz Dabala war a jàngal ba pare association fecckat mm-hmm. lan lan moo ëmb association bi lan la mm-hmm. lan moo ko ëmb lu ëmb euh, association bi waaw xam nga association dafa waroon nekk association boo xam ni. waaw dañuy protéger ñëpp ci fecc mi. Mhm. ba nga xam ni même kenn benn benn booy bu naree cóolle wala yorul dara. ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw. jàppale ko pour mu fecc groupe am dox. Mhm. mais souvent léeg yenn association yi association nga dee ñu ñëw la. waaw ñu dajee lu am lépp jox la ko loolu moom Sénégal. mais mais association néew <laughs> bokkul ak association kuy dund. ba pare association yu si bëri. Mhm. fecckat yeeg musiciens yeeg yooyu association fecckat yi moom ñi mag ñi daan fecc ba tey ñooy continuer di fecc clip yu mag yi ñu ndaw ñi moom di bërëj bërëj ji di taxawaal. d'accord mais Jumbori artiste. ñu ne ci kaw. ñoo war a jàppale ñi ci suuf. pour ñu mën a yéeg tey xoola Europe bi gën a ngand mhm. bu doon ñi nga xam ne ñoo jël bakkan bakkanu Aziz Dabala am nañ comme xel mi maam mhm. duñ ko jël xam nga lan moo leen koy teree jël lan boo ñëwee situation que noom Aziz Dabala rek di nga xam ne lii moo taxoon muy daw gauche droite mhm. dëgg la kon boo jëlee bakkanam ñand nga leen lañcat am na wala amul ñu dem ci cause boobu mais demuñ ci cause kër Aziz Dabala ak ñu fa dugg ak lan moo tax ñu dugg fa combat bi ñu def nan lañ def ba xam kër gi ndax xamoon nañ kër gi hmm. ndax xamoon nañ kër gi lan moo tax ñu ñëw ci biir kër gi ak ah, kan moo leen wan <laughs> kër gi ah. lan moo tax ñu ñëw ci kër gi lan moo tax ñu ray ko léegi lañ si jublu lan lañ si doon wut ci ray gi mm-hmm. mais daal en tout cas ni mu ni mu linkoon hmm. ñooñu ñu mën néew lañ mën nañ néew torop mais artistes yi fa dem semaine bi Jumbori bari na de gis nañ ci Kumba Gawlo Momo Dieng ba ci Waly Seck ban jànkat nga am ci liñ def dem jébbal seen njaal. ci Aziz wax aussi ay seer yu rafet Kumba Gawlo am na témoignage yu rafet bi mu wax ci moom nee na Aziz fu mu fu heure julli musaan jot. dem na ba tudd moom ak temps ak xawma kan dañuy lal julli maam artistes yi nga xamante ni dem nañ jaale ji ki nga xamante ni moom mooy Aziz Dabala ban jàngat nga ci am. julli lan nga kañ loolu. Hmm. waxuñu loolu de Aziz moom dem na ba pare hmm. mais Aziz ni mu sen sekkaloon link link waaw ñu mën néew lañ laa la wax hmm. lu tax sénégalais mën néew te mënul nit kuy dund akam ma jaaxal dëgg la de waaye da ngay gis benn nit mu dee nga làmb poos bi fekk fa facture cinquante mille mbaa soixante di mille fayu ko si bis bi gars yi jëndal ko ay nag yi millions. wala ordonnance gis nañ ko fi vraiment dëgg la de. xam nga ni ki am ah, problème mu ah, ah, ordonnance 5000 mu dee nga def ci ay millions. waaw xoola ki la yàlla booleel. Hmm. est-ce que amoo droit fexe ba mu muy yow. <laughs> Hmm. ma fexe ba ngay man moo ëpp solo. ak fexe ba nga yow man moo gën mm-hmm. parce que bi ngay ñëw yow la ah. bi ngay ñëw si man man la léegi ndax damaa war a fexe ba ngay man wala dama wala damaa war a fexe ba ngay yow ni Aziz doon àndal dañoo waroon a fexe dañoo war a ba Aziz di Aziz wala dañoo waroon a fexe ba Aziz di ñoom mm, parce que gis nga Aziz am na lu mu am mais dafa soxla woon mel na ñoom wallaahi di daw guddeeg bëccëg dëgg la de. mais bu fekkee yéen da ngeen koy fecc loo clip doo leen ko jox dara fu mu nii mooy buzz bi Aziz ay bi. Mhm. ñi mu yëpp daanaka fayoon nañu njoom ci lañ yeewoo ci la seen buzz yeewoo de. Mhm. parce que ay waay jàmmi waay. ñu bëri man am na ñu xam ni gisatuma leen woon pour ñoom bàyyi nañu way sax. mais ci ah Aziz na leen ci lañ profité. nekk naan feccal na ak. ci demee yéen doo ma <laughs> may. doy na que fay nañ aji sax parce que yore luñ ko xaalis. waroon nañ ko xool. Mhm. parce que Aziz yéene lay demee. mu dugg yéene lay deme yàlla na dee di noflaayam. moom waali allahumma amiin barke Seyduna Muhammad ñi nga xam ne nii nag ñoom ñoo fexe pexe mi. Mhm. yàlla na musibam yàlla wàcc seen kaw si barke Seyduna Muhammad allahumma amiin waaw. képp kuy fexee rey mbaa ngay fexee làggal mbaa ngay fexee faagaagal yal na musibam yàlla wàcc sa kaw si barke Seyduna Muhammad parce que réew mi dafa am ñu fi nekk di nag-nag lu ñii di mbaam mbaam lu xam nga bu ñu wutoon yat rek léegi ñu ñoo ñu réglé wax dëgg yàlla. teg leen ci yoon. way <laughs> way d' accord. <laughs> jubóori loolu am solo bu baax a baax mu ñu woon euh, wax.